kii benn waay ju baax la ju yiw ju nangoo jaamu yàlla te mën cee sonn lool ñëpp nangul nañ ko jàmbaare gi mu jàmbaare ci jaamu yàlla sunu boroom nekk nit ku sell nit ku maandu nit koo xam ne ñëpp xam nañ ko ci jublu boroomam wane li nga xam ne mooy àdduna ginnaaw melokaan bi nag nekk melokaan bu yàgg ci moom. ca ba mu nekkee ndaw nekk tu tànk xàmmee mën a dox. mën a wax ay soxlaam toll ci fow yi comme ay moroomam boobu la yor melokaan boo xam ne wute woon na lool ak ni moroomam meloon daawul foo foo yi nga xam ne kenn nanguwul sa doom di ko foowee daawul def lenn loo xam ne lu jaaduwut la wala loo xam ne dañ ci yedd xale wala ñu ko ciy duma daan na maytu lépp luy nuru caaxaan nekkoon melokaan bu yéeme ci moom mën naa ne yi nga xam ne bu ko xale defee sax duñ ko ci bindal bàkkaar ndax xale la xamul dara moom daaw ko jege ba koy def ba daan ko foowee taxoon na mu yoroon melokaan boo xam ne jaaxlu na ay waajuram lool ñu amoon yaakaar ci moom loolu nag mel na ni loo xam ne màgg na ci moom ba ni mu màggee nekk na ci moom di wéy ak moom ba mu màgg ba xàmmee bi mu demee ba mat muskalaaf nag ci leen ko fàttalil doxalinam fàttalikuwul moom it benn yoon ci doxalinam foo xam ne def na fa wala mu wax fa lu neexul yàlla gis na ne daal parcours ci ndawam ba magam yépp rafet na tax na nag mu gën a sóobu ci jaamu yàlla wéetal ko moom kenn bañ cee rax leneen taxoon na mu nekkoon nag juróom di leen jàppale waaye bi ay juróom génne àdduna mu daal di beeru nag dëkk moom kenn rek dëkk moom kenn rek nag ngir jaamu yàlla gu raxul dara farlu woon ci jaamu yàlla am ci cofeel lool lépp loo xam ne yàlla sunu borom daf ko tere woon mu moytu ko lépp loo xam ne itam yàlla daf ko digle mu sax ci loolu di ko def waaye tamit mu nekkoon koo xam ne melokaanam wuute woon na loolu ak waa dëkkam nañu meloon ndax dañ doon dund comme nitu jamono yi ni ñuy dundee tappale fen caaxaan ak wuruj moom nag daawul nangu benn yoon di wax lu dul dëgg nanguwul benn yoon ñu tudd nit ci kanamam bépp tomb boo xam ne yàlla daf ko araamal wala mu tere ko moom xamoon na ko te daan na ko moytu bu baax a baax a baax ba tax na liggéey yu bari duggoon na ci di liggéey waaye bu demee ba ci biir gis liggéey bi lenn loo xam ne jubul wala teguwul ci siraatal mustaxim dafay bàyyi liggéey boobu ba tax na fa mu mujjee di liggéey ngir mën a am lu muy dundee lu lew loo xam ne mën na koy dundee mu mujj nag dem ca gaar ba di yenn ay matt ñu koy fay noonu la mujj di ko liggéeyee mu nekkoon liggéey bu am solo nekkoon itam liggéey bu maandu ndax saa boo xamee ne gis na client boo xam ne génn na mattam te àttanu ko mu daal di ko yennul matt wi ba fa mu jëm wàccal ko ko kooku daal di génne xaalis fay ko xaalis boobu lay dajale di ko dundee di ci suturlu di ci jënd ay xéewalam di xéewlu waaye saabu bu liggéey ba wàcc nag li des ci taawum yépp daf koy jaamu yàlla di wéetal yàlla di ñaan boroomam di tuub ci boroomam jaamu yàlla googu ak sell googu taxoon nit ñi joxoon nañ ko war ma lool bàyyi woon nañ ko xel waaye li ko nit ñi di jublu jublu moom daw nit wala mu may wala mu yoral kenn àq loolu nag dem ba leer ci xolam ak xelam xelam dal loolu ba nga xamee ne moom daan na wax lu bari ci gémmiñam ne man day bis bu ma faatoo li may bëgg mooy sama borom atte ma ci samay jëf yu baax ndax jàpp naa ne man maay benn nit boo xam ne soxlawuma sax yàlla di ma dimbalee wala mu di ma yërëm ndax lépp lu mu mus a digle def naa ko lépp lu mu mus a tere bàyyi naa ko te moom yàlla de buur bu màndu comme dafa màndu nag te lim musa digle yëpp def naa ko lim musa tere yëpp bàyyi naa ko kon jàpp naa ne suma ma faatoo ci samay jëf yu baax ak sama màndu ak sama jub ci la may àttee loolu nag nekkoon loo xam ne indi woon na coow maanaam polémique bu bari ci dëkkam ak yenn boroom xam-xam yi waaye fu ñu ko càmbaree rek gis ne moom ku set la ci bàkkaar amul benn point boo xam ne nit mën na ko faa jam ci li nga xam ne mooy lu neexul yàlla wala loo xam ne lu mu waroon a def la def ko wala loo xam ne àq la kuy ragal daw àq kuy ragal tooñ nit ba tax na daan na daw nit ñi di leen sori fu mu toll taxoon ne itam ñépp di sàkk ci moom ñaan ñi di sàkk ci ñoom barkeelu waaye moom itam nangul woon a jëflaate kenn ngir bañ rek def nit wala mu wax nit loo xam ne bu ëllëgee dina dox digganteem ak yàlla bañ ko àtte ci jëfam moom daal li mu bëgg mooy li muy jëf rek yàlla atte ko ci loolu waaye bëggul benn yoon yàlla bàyyi fi ay jëfam moom di ko atte ci yërmandeem di yërmande yàlla di rëy rëy moom dox bëgg rek yàlla atte ko ci ay jëfam moom góor gu baax googu. noonu la góor yàlla gu baax googu wéyale nekkinam liggéeyam saa bu xëyee dem ca gaar ba def liggéeyam liggéey bi nag mooy képp koo xam ne jënd nga matt wala nga gor lu matt ba ñu goral la ko ci àll bi. te àttanoo ko moom moo la ko yennul ba sa kër ndax waxambaane woon la bu am kàttan yennul la ko ba sa kër daal di la koy wàccal su la ko wàccalee nga génne xaalis daal di koy fay noonu la waaju baax jooju dal di wéyalee liggéeyam def na ko ba am lu tollook ngeen fukki at nga xam ne léegi nag gën na jëm mag waaye noonu mu wéyal liggéeyam boole kook maandu boole kook jub ak tegu ci siraatal mustaxim comme ni mu ko tàmmoo defee dem na ba li nga xam ne mooy jaamu yàlla ak jub ak maandu chronique na ci yaramam ba tax na ni mu daan sonnee di maytu sax lu naqar yàlla sonneetuwul noonu amatul coono ci maytu bàkkaar amatul coono itam ci jaamu yàlla noonu nag la tàmmee loolu ba wéy ci loolu waaye waajooju waaju baax jooju benn bis mu dal di tëdd guddi bi mu tëddee ci guddi gi rekk mel ni malaaka daf ko dikkal mu dal di faatu bi mu faatoo daal di gis ñu waajal ko comme ni nga xam ne noonu la ñuy waajalee ku faatu daldi koy dugal ci bàmmeel bi bi ñu ko dugalee ci bàmmeel bi ba dem mu daldi gis bis ci jot doomu aadama yu bari daal di taxaw daal di mu gis lu ëpp ci nit ñi bu ñu leen di àttee ngir ñu taxe rek faw yàlla yërëm leen door leen a àtte door leen a bàyyi ñu texe ndax nit ñi bu ñu peesee seeni jëf yu baax ak seeni jëf yu bon jëf yu bon yi day ëpp jëf yu baax yi lool te lu ëpp ci nit ñi danañ jaxe ndax yàlla def ciy dugal yërmandeem ndax lu bari lu ñu daan def ci njumte amaana sax daa ko xam moo koy seetlu ndax àdduna tënk na leen yërmande yàlla ji bari lool ci atte bi lépp góor gu baax gi moom ma nga taxaw ci rang bi nga xam ne fa la ñu àttee bi suñu borom agsee ci moom ci ilham mu dégg lu mel ni kàddu suñu borom daldi di koy laaj ay jëfam muy wax mu koy laaj muy wax bi mu waxee ba noppi nag waa jooju daal tontu suñu borom li nga xam ni moo nekkoon ak mébétam li mu tontu suñu boroom mooy yow sunu borom dama musa a sàkku ci yow li ma la mus a defal yépp ci àdduna li ma mus a def yëpp ci àdduna ngir yow dama musa a sàkku ci yow saa bu ma faatoo ñu àttee may ci samay jëf yu baax ndax jëf moo benn yoon lu bon lu ma mën a dugal safara te jëf naa dëkkee naa jëf lu baax lu ma mën a dugal àjjana kon tey moom man bokk naa ci jaam yi nga xam ne soxluwuma sa yërmande noonu su borom daal di ne ko léegi nañ ay xisaab maanaam nañu calculer say mbir daal di koy wuññi teg ko ci taabal ji lijjanti say mbir yépp bu lépp leeree su boobaa ma bàyyi la nga daal di dugg aljana sans sama yërmande wala sama njéggal noonu ñu tàmbalee ko ci la nga xam ne moom la njëkk def mooy liggéey boobu mu daan liggéey nga xam ne moo gën a feeñ ci ak dundam li njëkk a li njëkk xool muy liggéey bi nga xam ne moom la daan liggéey nga xam ne moo gën a fës ci ak dundam mooy yenn matt bi nga xam ne ñu bari ginnaaw jàmm yàlla loolu lañ ko xamee yàlla xisaab matt mi mu njëkk a yenn bi ko yàlla xisaabee mel ni vidéo surveillance boo xam ne dañ ko filmer woon ci caméra surveillance ba pare tegalaat ko waa ji bi mu gisee image bi gis ne moom ki mu client bi mu njëkk kooku daf koo fay ci misaal da koo fay 1000 francs waa ji 1000 francs yooyu ko client bi fayee ba noppi ñu waxaale ci ba déggoo fekk waa ji jëndoon na ndawal daal di lu ba regg ci xaalisam mu leew ko domm waa ji daal di yenn matt mi ngir yëbbal ko client bi ci seen contrat bi waaye waa ji ci matt moom mu njëkk a yenn rek ba mu doxee deux minutes rek ba mu doxee lu tolloog deux minutes maanaam ñaari simili waa ji daal di ne damm ci matt mi benn bant daal di ciy sekkandiku ba noppi sànni ko waaye client baa ngi topp ci ginnaawam di xool bant bi muy damm di ko sànni ndax client bi dafa nekkoon koo xam ne ku nay la ku bëgge la waa ji daal di damaat beneen bant daal di ciy sekkandiku daal di koy sànni client bi moo bëgg a wax ak moom ne ko waa sama matt mi ngay damm nag waaye comme ni muy damm ay bant yu ndaw la waa ji dal di koy bàyyi noonu waaye taxut la mu def it mu neex ko ndax dafa bëggee bëggul kenn ku laa alalam nitu yàlla ki nag bi ko sunu borom wanee image boobu mu gis ko ba noppi sunu borom ne ko nag bant yooyu nga dammoon bor la boo xam ne danga ko yoral waa ji faawu fii nga ko koy mën a faye mu ne ko nañ jàllaat waaye bi ko sunu borom ne ko nañu jàllaat waa ji dafa daal di sukk coroon sunu borom daal di jooy ne ko maa ngi waat ne kenn du texe lu dul dafa am sa yërmande yow sunu borom ak sa njëggal kon sa yërmande yow yàlla moo doon li gën ci ab jaam moo doon li gën a màgg ndax lu matadi la loo defee defe ne jag nga rek nekk yërmaande yàlla rek nga soxla noonu la waa ji daal di jooyee ci kanam suñu borom daal di tallal suñu borom loxo daal di koy jéggalu li doon bañ di ci tiitaru mujj na ko nangu noonu la suñu borom daal di jéggalee mu daal di texe noonu la ko malaaka yu baax yi jiitalee ngir jëmale ko àjjana noonu la waa ju baax ji daal di tiit rek daal di yeewu ndeke moom ci nelaw la nekkoon daf doon gént noonu nag la daal di jàpp waatee ba sell daal di tàllal loxo suñu borom ngir tuubal ko ci xalaat bi nga xam ne amoon na ko ci réy gi mu réyoon naan man soxlawuma yërmande yàlla samay jëf laa soxla loolu nag mel ni bàkkaar bu rëy rëy la ci moom loolu nag nekk lu diis loo xam ne bu démb doon tey du ko wax wala mu koy def loolu nag yëbbu na ko ci delluwaat ci yàlla tuubaat mel ni ku judduwaat lan doon jaamu yàlla mu yokk ko waaye gën a yokk maslaam ak nit ñi ak lu toroxlu di dund dund ko sell boo xam ne dund suufiyu koo xam ne daal nitu yàlla yi noonu lañ dundee ngir bañ a yaral kenn àq waaye itam di yaakaar fu ñu toll jégalu yàlla ak li nga xam ne mooy yërmandeem lii nag di histoire yërmande yàlla kon ndeke ni yërmande yàlla jaam yépp a ko soxla noonu la màggee ndax kilifa gu mag a mag dafa mosoon a wax benn wax ju am solo wax ne nit day ndeke cat dana ko topp ba ci biir bàmmeel ndax nit su dee ku baax la ku jub la ku ñëpp xamal lu baax kenn xamal ko lu ñaaw bu faatoo sax cat bi koy jàpp mooy nit ñi dañuy tayal ci ñaanal ko ndax dañuy jàpp ne rek moom texe na te déedéet jullit fu mu faatoo soxla na ñaan njéggalu yàlla ak yërmandeem fu mu toll kon yàlla moom ma yor yërmande ju mag ji moom rek moo mën a yëral yërëm jaam ñi comme moom sunu borom ñoo ngi koy ñaan ñi nga xam ne ñooy mbokki jullit ya jiitu mu yërëm leen jéggal leen ñun ñii fi des mu tënk ci njub ba ñu fekk ji leen te yàlla sotti yërmandeem ci sunu kaw bi jaay seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam